mbooloo mi délégué de quartier na mu ngi sant ñëpp mbooloo mi di leen di gërëm di ci jiital monsieur le maire ji Mamat Ba ak ñi mu àndal ñëpp na xam na fi ngeen ko teg bu baax a baax mu ne kontaan na bu baax a baax a baax mu ne lii mu ngi door a am nee na. mu ne lii lu mel nii mu ngi door a am te moom yàgg na ñooro nekk naa ak ma Ousmane Ba maire yi fi jaar yépp nekk naa ñoom ñëpp nee na lii mu ngi door a am te moom ku ko xam xam ne du waxantu du waxi caaxaan mu ne joxe suukar joxe tàndarma indil ko sa bopp mu ngi soog am. mu ne ma saam mu ngi soog a am. mu ne suukar kese leen daan joxe. tàndarma bokkul ci woon. waaye joxe suukar joxe tàndarma mu ngi doog a am ci moom ren. boole ci tamit moo ko indil boppam. ñeneen ñi dañ daa yóbbu mu ngi defar lu lool bu baax a baax. nee na kontaan na bu baax moo xam du mën a gudd. yaram bi neexut dafa sudante yal na yàlla defar sutura. ak jàmm ak ndam yàlla nañ ko muuroo waaw te ñu te ñu bàyyi xel di fàttaliku ñooro maam Ousmane Ba njóogu dañu war a am honneur ci dëkk bi ay avenue njóogu wàkk avenue maam Ousmane Ba parce que ñoo tabax ñooro buntu kër njóogu wàkk boo fa jaaree mbedd moom tali dafa war a réflexion dafa war a baaxaat ñu bàyyi ko xel jaar buntu kër Maalik ñu jàppale ñu si waaw ñaar ñooñu dañ am histoire Nioro dañ leen war a di dafa war a am mémoire Mame Ousmane Ba Ndiogou ñu xam ne Nioro fii la commencé dañ liggéey Nioro. ñëpp di nuyu ñëpp ginnaaw bu ñu sante yàlla ñu ngi julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di rafet lool jotaay bi tey jotaay bi li ko waral muy maire commune bi ci boppam moo ànd ak ay naataangoom ñëw. waaye ñi muy liggéeyal ci conseil municipal bi ñëw di indi ndimbal loo xam te ne nii askan wi ñoo ko moom. du keneen ku ko moom waaye néew di doole ñoom ñoo ko yelloon ñoom ñoo ko moom e, bi mu ñu dalee ñu bari ñu daw ñu ñu ñu daw ñu ñëw fii di ñu laaj dañu ne dañu bind kenn lu dul dinañ xam ndax dinañ la mën a jox wala duñ la mën a jox immédiatement la o madame euh, chargée donc di social mu wax ko ko alors après le qui la fa Aliou Fall o oh, na ma maire mu il est prêt à vous recevoir ci suba la fa dem mu ne ma ci ngoon gi dina ñëw affaire bi euh, comment dirais-je mbir mi ñoo ko gisandoo di la aussi ci li nga xam te ni la def recevoir mon ci bés bi wax ma ne mu te mottali alors yàlla na ko yàlla jàppale yàlla kattanal ko ci li nga xamante ni moo nekk meeru Nioro bu bees bi mu alors yàlla na ko ci yàlla defal ndam lu yàlla kàttanal ko dolli ko wër ak ñi ko gunge eh, yàlla teg leen ci yoonu njub ba nga xam te ni li ñuy def lu baax yàlla yombalal leen ko yàlla yombalal leen moyens yu ñuy jàppale askan wi yàlla yombalal leen xel mu sell aussi bu ñuy jàppale askan bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim tey day dañ doon dem ñu nag conseil municipal bi di di di yeggali rek li nga xam ne commencé woon nañ ko sóob nañ ko semaine passé semaine passée defoon nañ ba nga xam ne ñu ngi suñ mbokk chrétiens yi joxoon nañ leen seen suukar suñ appui mairie bi comme ni ma ko waxoon man suñ ma bi ma falee maire maire ñëpp la donc dañ dem jox suñ mbokk chrétiens yi seen appui suukar tey nag ñu doon def appui population bi commencé nañ ko démb sax mais ñu ngi jaar ci ci jumaa yi ak jàkka yi jox nañ leen ñeent fukk leen ci ci ñooro fukk jumaa yu mag ñoom jox nañ leen seen wàll ci ci tàndarma ak ci suukar pour que ci ci weeru koor bi ñu am lu ñu mën a dogee def nañ aussi loolu ci jàkka yi tey nag ñu waroon def ci population bi population bi nag ay anam yu bëri la dañ jaar d'abord ci chef de quartier yi ak seen seen seen seen euh, groupement ñi nga xam ne ñoom ñooy doon benn équipe boo xam ne mu ñoo war a xool ñi nga xam ne ñoom la ñu séddale ñu jaar ci ñoom ci quartier yu nekk six quartiers yëpp dem nañ fa yóbbu fa li nga xam ne war nañ ko fa yóbbu muy suukar ak euh, ak tàndarma euh, ñoom ñu ngi ko war a séddale jaar nañ aussi ci administration yi administration bi ñu mujjee moom mooy mooy fii nii ci action sociale bi nga xam ne moom itam mooy recensé ñi nga xam ne ñoom ñu néew gi doole yi donc dañ ñëw pour dimbale néew gi doole yi jaar ci ñooñu ñu wax leen ñoom ñu ñu yeggali suñuy loxo euh, du mat nag peut-être pour ñëpp wante ñu ngi fi di gën a xool rek li nga xam ne war nañ ko def ñu ko ci gën a yokk di ko def ñu ngi fi taxawal njaboot gi di fi taxawal population bi loolu moo ñu war ci loolu la ñuy nekk loolu daal lañ doon am di ko def tey waaw léegi laaj nga ma aussi ci daara yi daara yi liñ doon def dafa amoon ay jigéen ñoo xam ne dañ doon jox bi ñuy inauguré dafa am lu ñu ma laajoon di ma ñaan ndimbal ma jox leen loo xam ne mën nañ ko yóbbu pour pour fête googu fête bi nga xam ne moom lañ ubbite école daara moderne bu Papa Laye Dramé euh, ubbite boobu nag bu ñu koy joxee bi ñu leen joxee li ñu leen jox gis ñoom itam ñuy cotiser ne dañuy jënd machine pour di fóotal xale yi taalibe yi ma ne leen man dinaa ko jënd moom laa jëndoon tey jënd naa ko sax man na ñaari semaine ñun mu newoon fii mais tey leen ko jox pour ñu yóbbu ko aussi gis nañ ne dañ soxla aussi ñu defaral leen carrelage seen salle wax nañ ne dañ ko defar loolu yëpp ay action la action sociale yoo xam ne ñu koy def waaw voilà nekk nag yóbbu nañ fa lu lu lu mat yóbbu nañ fa euh, ñaari keesu keesu tàndarma yu mat ah yu kees bu nekk mooy vingt kilos yóbbu nañ fa aussi ay ñeenti grosse dañ calculer rek ne ci ci ci weeru koor bi loolu war nañ ci mën a di di dog Euh, jàkk bu nekk nag yóbbu nañ fa benn keesu euh, euh, yóbbu nañ fa gros su suukar moom bu mat ak ak keesu tàndarma ñi nga xam ne mooy mooy mooy quartier bu ne yóbbu nañ fa 200 kilos suukar moom mooy 200 paquet suukar ay gros la ak yóbbu nañ fa aussi juróom juróomi juróom fukk kilo bu tàndarma muy 50 kilos kooku def nañ ko ci quartier bu ne Euh, action sociale itam jox nañ ko moom itam kan quasiment lu ni mel mais ñetti saako 50 kilos suukar lañ ko jox ak grosse tendre yi ma wax noonu administration yi aussi ñu ngi joxe pour nit ñi kii après aussi population bi am na ñenn ñoo xam ne aussi dañ jaar ci marché yi ak yooyu ñu ngi di joxe daal pour pour que ku ci nekk da gis ci sa bopp